nga gisee the euh, main mosque jubloo di main church mu ne musuta am seen waaw soo nañ continuer loolu nag ne bu njëkka lañ ko jàmbat soo nañ ko continuer buñ ko yaaxa ita ñi ñoom ñëpp doomi réew bu baax lañ waaw te nit ñi mun nañoo tànn ku leen neex waaw soo ñu bàyyi te tey bi yoon comme li ma waxat itam kontaan nañ si AIC de sinit li parce que bii musuta am dina daan am nag ba jën naa te si mu nekk wane nañ ne ah lu nekk rek free and fair na nekk level playing field den ñu waxal nit ñi ñu am seen jàmm bu leen kenn tiital bu leen kenn intimidate nit ñi sànni ka leen neex. Mm-hmm. Gambie jàmma lañ xam. te benn gaal gi la soo buñ suuxal gaal gi. buñ ko diigal mm-hmm. nañ gis ne gaal gi. Mm-hmm. nekkal si biir soxla ñu jagal ko te ku yàlla may rek. nañ ko jàppale. macha allah ku nekk rek nag. macha allah soo jërëjëf jëf kontaan nañ si. defe naa ne tey am na solo lool parce que ñu ni neen la. te réew mi ñun ñëpp ko bokk ñepp ko mom ñepp ci em hana di wax rek ne di wax ñu ñoy seetaan te Gambia kenn du fi ñëw ah, ah, sampal ñu fi jama o kenn du fi ñew développer ñun ñoko mom ñun ñoo dëkk ñun ñoo bokkande abay ñun ñoo demalante ngenté ñun ñoo demalante déj ñun ñoo demalante taka so kon election angale ñu ko dee waxee politicians come and go but families and people stays forever elections every five years la dafa ñëw den su jotee lu abi comme ni nga ko waxee ñun yëpp ñoom Gambian lañ te am nañ right vote te di ñaax nit ñi ne politique comme ay doomi doom doom baay ak doomi nijaay dafa war dafa mel ni ay kal lañ mm-hmm. man dama am suma programme yow nga am sa programme léegi nañ dem ñu jaay ko seen nit ñi ñu woon leen Mhm. kan ban programme moo gën a baax o ñoom ban programme ak gën a bëgg a nit ñoo xam ne ñoom ñooy électorate si ñoom dañu war a xam ne ñoom dañu ñu war a gis as royokaay njiit ñi si lu ñoo wax lu ñoo suñ lu ñoo jëf ak suñ directives foo naa loolu dafa am solo lool lii taayam rek la diir rek la am dafa passé ñun ñoo fee nekk de faw foo naa loolu lu leer la ma ne si njiit yi président Jammeh si njiit yi APRC pour wax nit ñi ne ñi nga xam ne ñoom ñooy APRC directives bu président Jammeh jox bu kenn xuloo bu kenn xee buggu niiroo buggu ñaaroo. jërëjëf Sidi honorable Sidi téye ko foofu léegi nañ dellu ci euh, PC. ban directive laa joxe ak lan la ñu wax seen supporters. déet ñun li ñoo wax ñun wax nañ ko démb ba du tey te ci loolu lañ sax loolu lañ nekkoon. dégg ngeen bi Ousseynou Daaba demee dem eh, eh, eh, def nomination am lam njëkkaa wax mooy loolu ñun liñ la wax wax nañ la ko ne jàmm la ñoo oote jàmm lañ jëmbat jàmm lañ judd fekk ci réew mi jàmm lañ bugg a mu continuer. Oh, jërëjëf comme ni ko PC waxee rek di ngeen see ñun tam daal suñu leader si loolu lañ wax est ñun jigéen leader si. Mhm. day wax yépp ak suñu leader United Front Amad Keba. soo diggee sëñ ñu li wax suñu gaa yi mooy jàmm lañ bëgg. Mhm. ak wax ju rafet. Mhm. wax ju dee. campagne bi. Mhm. mu ngi jeex on dit twenty second. waaw. on twenty third. xew. bu kenn dem fenn bu kenn wane sànni kartam bés bi on dit twenty kenn dem wane ne sol mbuba wala benn mandarga bu wane ne fii laa féetoo. loolu moom is totally against law bu ko kenn def nag. no exception to the rule. fair play integrity transparency moom suñu moto ñun yàlla nañu fi yàlla jekk jàppale jekk alhamdulilah rabbil alamin wasalaam amin kon ñu foog naa ne dina jéggalu ndax ñi indi tey daanaka duñ am kàddu ndax ñi ñoo moom kàddu yi tey kon nag képp ku nekk ci biir réew mi ak bitim réew parti wax nañ partie bu nekk lim bugg a mooy jàmm lim sant ñi ko topp mooy jàmm am parti bu nekk ne na waxatu sax ak parti mu réew mi ñooy wax mm-hmm. kon nag réew mi wax jàngu hmm. ñi bokk ab mbir mi yëpp jàmm lañ bugga ndax ñoomi neen ñu ngi jàmmoo ci seen biir kon yéen ñi leen toppatoo war ngeen a jàmmoo ci seen biir jàmm am ci biir réew mi léeg-léeg naa mu am lu xew ñoo xam ne duñ sànni carte sax bokkuñ ci dara jóg rek pour def fitna ci biir mhm. réew mi mhm. loolu nag joxe nañ ci at bu yàgg ne réew mi jàmm lañ xam mhm. jàmm lañ bugga koo xam ne nag bugga ngaa indi ré fitna ci biir réew mi na nga xam ne fitna ngaa taal ci sa bopp ndax réew mi fitna xeju fi jàmm rek moo fi xej te jàmm jooju ñu ngi ko ñaan yal ñu ko yàlla defal. ñu ko ci ak jàmm génn ci ak jàmm aj Babacar. Euh, euh, sëñ wax wax nga ko lépp mu ngi mel ni am na ñoo xam ne ci jàmm la ñuy dund ñoo ñoo gën a bëri ñi nga xam ne ci fitna la ñuy dund nag faaw ñu teel leen a daal di leen gaare ndax itam fitna baaxul góor nee na ay li fekk yaa ngi koy dégg muccagoo ci amul ay wu tuuti. kon yàlla nañu yàlla musal defe ne li nga xam ne mënoon nañ ko def ci wàllu nit def nañu ko li ci des mooy ñaan ñi nga xam ne waxtu bu nekk ñi ngi ñaan yàlla ñu ñaan ñëpp na ñaan na ñëpp ñaan bu kenn xeeb sa bopp na ñëpp ñaan yàlla def jàmm ci xol yi bu ko defee ci xol yi incha allah cër yi ko jëfe yàlla def ba ñu toogaat fi ci yeneen jamono di nag mbir yaa ngoog élection bi dafa ñëw dafa passé ñoo fee des ñooy tasee ci jumaa yi ñooy tasee ci cooc yi ñooy tasee ci marché yi ñooy tasee ci lopitaan yi bon nag ñu war a xam ne ñu ni neen la ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñaan yàlla ñu fekkee élection yi ak jàmm génn ci ak jàmm toogaat fi ak jàmm ci niñ ko xamee ci biir réew mi fii lañ leen di tàggoo nag tey ci programme yi ñu ne neen la ba beneen bés bu ay jërëjëf hmm. waaye xaw ma ñaata lañ ko wéccee ci marché bi bul amati benn njaaxle ndax Qcell asil na la Q currency léegi ak sa Qcell line bi di nga mën a yónnee SMS pour xam ñaata la ñuy jëndee wala jaayee dollar bi pound sterling bi euro CFA ak xaalis yi yeneen dëkk yi ci àdduna bi Yonel blank SMS wala CURR 4 422 pour nga jot exchange rate si major currency si si bi. Q currency dina la wax ñaata la benn xaalis di wécceekoo si beneen. Visit our website www.qcell.gm or call customer care on 111 for more information. QCell, Sunye Boss, the only 3G plus network in the Gambia. na ñu ni nee na ñoo bokk réew mi ñu ni nee na ñu ni nee na mu yaatal réew mi தமிழ்